jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne tey nag ñoo ngi ci émission mag bi nga xamante ni nii mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci fans yi waaye bu ma nee jàmmaarloo mbokk yi xel yi dem ci ñaari mbër yi nga xamante ni ñooy dugg ci diggi géew bi di jëflante ba tax na tey nag dama fee dalal ñaari champion yoo xamante nii def nañ lu ne ci làmb ndax su ma ñëwee sama góos maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy Feu Rouge Fourouz bu Bosco saw léegi nag dafa mel ni dafa dafa dafa dafa def transfert dem ci équitage nga ci Eumeu seen ndax keroog bi Eumeu seen di ànd ak di bëre Bombardier moo ko andi sama droite maa ngi fi am ki nga xamante ne mooy Maguette Seck ñu ko bu la neexee wax Maguette Seck bu la neexee wax Boy Niang numéro 2 moom daal euh, nii daal lañ koy def mu nekk équipe Balla Gaye ma bàyyi leen ñu nuyoo ñu ndoo ko wéyal waxtaan wi ci kan laa njëkkee ci yow wala ci moom dafa moom mooy mag de. non sama kilifa la. ah si kilifa la kon kilifa gi maa ngi sekk demal. <laughs> waaw. auzu billahi mina sheytaan bismillahi rahmaani rahim maa ngi sant yàlla di julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur. <clears throat> di sant Feu Rouge. Mhm. di bëggee Feu di ko ziar di nuyu. micro bi képp koo xamante ni yaa ngi bëggee làmb di leen bëggee daal. mais gannaaw tey bànn na rek gisoo nu mu téye maayag bi nii <laughs> Feu nuyu naa la. doom lay maa lay fay. Mm-hmm. dina am sant yàlla julli yoon sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ sëriñ ci alxuraan. di sant mm-hmm. waaw. Mm-hmm. di nuyu sama doom nday Pape Dieng maa ngi koy bëgg lu bari di la bëgg di bëgg Maguette Seck boo ñaar di bëgg gaa yi nekk fii yëpp maa leen bëgg lu bari waaw. transfert bi lu ko waral transfert. non du transfert saw jóge Bosco Sow dem Taïsinga lan moo waral. non transfert sax Bosco Sow sama écurie la. Taïsinga sama écurie la. lépp benn lañu ci man parce que ñi nekk fii ñëpp samay xarit lañ ma fu ma dem yàlla defal day def ñëpp dañ may bëgg taay si nga yàgg ma xam ne fa 30 ans ña ko sos ci laa bokk nga yaakaar loolu ba nii fu ma tourné booy maa ngi ñu ànd côté bi pare sama xarit la. non mais dafa ndànk yooyu ñoom d'accord ñoom ñoom say xarit lañ. Mm. da nga fa gis ay ay luur yoo mën a kontaagal yu amul fee wala lan moo tax ba jógee foofu. non bu dee daa toog liggéey. non du loolu caagin loolu sax xam nga tey nit nga dem ba yegg benn niveau bi. Mm-hmm. nga soxla yenn expérience bi war a jégaat àggaat beneen niveau tegaat beneen tànk parce que tamit bu fekkee da mm-hmm. am ci yow yaakaar trop. Mm-hmm. lambay am ci yow yaakaar trop bawal am ci yow yaakaar kon tey boo jóg nga war a jóge beneen façon pour fi nga boo ñëwaatee xam nga ñaari yoon ngi may ñëw foofu. di taxaw te du yoon tey may ñëwaat fii taxaw dama war a ñëw yéegoo sommet soo ko amaan même defet moom taxaw bi moom dinañ ci ñëw yow ñëwal rek taxaw bi moom waaw comme nu mooy li rek mu war a ñëwaat tegaat beneen pëlier dem moo tax ma dem bu ñàkk ñaan grand bu mm-hmm. ko def si ñun soxna tamit xuja ñu koy nuyu baax moom tamit mu nekk jigéen bu xam teraanga mm-hmm. waaw montori baax daal ñëpp ak heure ñoom daal ginnaaw équipe bi daal ginnaaw sama bopp daal mbay ku leen jox mën a tagg ñoom ko sant di ko gërëm <laughs> moo ñëw ci Maguette Seck Maguette Seck yow yow yow la mooy sa problème lan mooy sa problème ak làmb yaa ngi ci ñaata 27 combats wala 26 combats. 27 combats ajal micro 27 combats 6 défaites boo yi dëgër man tuuti wéerul tuuti non ah. dinaa ñëw xam da da nga ànd xarab. dafa ànd man xaw ma lu yomb def nii rek. kañ njëkk a bëre premier combat. sama premier combat 2004. 2004 2004 laa njëkk a bëre man Balla Gaye lees ñun ñëpp ñoo bëri ndoo benn année. Hmm. waaw. léegi lan mooy problème mu nga bëre ak Balla Gaye Balla Gaye dégg waa des années encaisse ay millions boobaa ak léegi nga tollu benn niveau bi lan moo waral loolu. waa mais àdduna moo bindoo noonu nit di nga yëngu si dara sax nit ñëw mujjee ñëw am ci loolu ci amul man xam si làmb fan laa si lan laa si bëgg man. dama bëgg suma ma màggatee samay doom bu ñu génnee ñun leen seen bàyyi jàmbaar la. man li may liggéey man maa koy def sama bopp làmb man maa ciy def suma xaalis mais làmb man amaguma si dara te incha allahu dinaa ko am. bi nga dalee ba ba léegi amaguloo dara ci làmb lan laa si làmb <clears throat> man maay am combat kay jël suma xaalis def ko def si te man duma dem kenn di la sonal damay liggéey avant làmb mhm. waaw su ma amee suma xaalis ma denc ko su ma amee sama bis ma def ko ci ban bañ ko ma toroxal waaw mën naa daal man su kenn gëmul man gëm naa sama bopp te xam naa man maay kan ku ku ku xamul sa njëg de war ngaa mën a xam li ngay jaayee sa bopp. claro noonu la demee nag. <laughs> gis ngeen mbokk mu def vingt vingt sept combats xaw ma vingt six combats boobaak léegi affaire xaw na metti trop ndax boo xoolee nag des fois da nga gis booy boo xamante ni xaw na fël def eh, quelque exploit ñu ne nañ ko jox magget Seck. non ñun suñu sport moo xaw am moo xaw a saytaane. sport lamb. lamb xaw yaay ñëw def fi dara. Mm-hmm. comme maanaam Foruz mi champion la. déedéet yow ñëwal damay wax boo déggee non xam nga fan la non damay wax noo tagguma de. waaw waxal sa bopp man c'est que wax sa mbaaxu waaye du wàññi sa mbaax dara. Foruz mi suñu waroon bëree man ak moom. di ngeen bëree sax noo déglu ma non defal ndànk waaw da ngay déglu ma wala waxal sa bopp waaw da ngay déglu ma non du ma déglu man mënu ma jox mënu ma joxe du ma joxe exemple sama bopp man nit mooy joxe exemple sama ci man mais man waaw kon léegi waa jox exemple ci keneen. man si exemple ci Bulldozer. waaw ci maanaam ci maa ngi koy ñaanal di ko nuyu sax di ko ñaanal carrière am. waaw yàlla na ko eggaleeg sagoom. Mm-hmm. waaw parce que làmb moom ñun ñëpp ñun ñoo bokk ndey. Mm-hmm. ñun ñoo bokk baay. mais suñu business moo laaj muy metti dafa war a metti. Mm-hmm. waaw nit nag ama gumba yaa koy wombat mais li koy may sarax moo koy may boppam. waaw mbër da nga koy gunge mais ci géew bi moom li koy li tax mu am victoire moom moo koy defal boppam. mais dama lay xamal. la moo tax nga ne seen sport dafa seytaane. non suñu sport dafa seytaane parce que sport. Mhm. moo demee noo xamante ni bu doon Europe la. Mhm. ñun suñu sport ñun ñii ñëpp ku ci nekk yor nga oto. Mhm. am ci lu baax ci loo toog. mais suñu sport moo organisé wul. ñun làmb ku ci def cinq ans war nga nekk professionnel. am oto fooy dem oto yóbbu la sa oto ngay dem di ñëw ci nekk ci condition yu leer. la moo la gën a métti ci làmb ji. non li ma gën a mett ci làmb mooy promoteur yi. ñàkk dëggal gi ñu dëggal seen bopp. comme naan non ku ci nekk rek yaa ngi faiblesse boo xamante ni sàmm lu ma lax soo bëggee nit war koo am rek nga koy wane. su la nit ki soxlaa nga indi beneen tànk. loolu du loolu du doxalul sport. maanaam daal dañuy gis mba promoteur yoo bari na si promoteur yoo xam bu la soxlaa li lay wax. Mm. ak lii am sa fi mais nit ku nekk war nga sàmm sa kàddu sa kàddu nga am lii may wax nag ku ci gis sa bopp bu ma tëgg man làmb dama see reyante ba bokk. Mm-hmm. kenn kenn gëw ma ma gëm sama bopp di jël suma xaalis di jënd ay billets léegi amul benn promoteur buy taxaw may jënd billet xalaatuma ko parce que dama bëreeg ay samay morom daan leen bëreeg sumay rakk daan leen ñii daan ma ci. kon làmb dafa am loo xamante ni gis nga garçon chaque jour ma di ko wax garçon nekk nit ko am ko am kóllëre la. Mm-hmm. bu mu demee ba ñëwaat ñi nga xamante ni nekkoon nañ fi. Mm-hmm. doon yëngoog ñoom ci làmb ñoom ñëpp jàpp na leen. zos indi waat na ko indi yeneen mbër ak yeneen mbër. saapuy ñun promoteur yi ñu fi nekkal nag ñun ay intérêt bu la soxlaa nga mën a jënd ñetti bolok ñu ngi ci yow boo mënatul jënd dara banaan la fi loolu àdduna suuf bu sudantee dañ koo jal mhm. dañu waxante dëgg te bàyyi fooy. man nag làmb ku ci yaakaar ne yaa yor sama wërsëg na nga ko téye. tegal foofu sa loxo ma ñëw ci Feu Rouge. ñu gis la làmb. làmb ni mu méttee parce que yow euh, boo xoolee sa début dafa neexoon Fawz bu ñëwee duy stade bi Fawz bu ñëwee bu bàkkoo day neex bu tuusee mu neex mais ñu dem ba ci biir Fawz bu ñu daan gis ak Fawz ma ñu xamoon gisatuñ ko ñu ci bari nag ne Fawz man daal comprendre ma. mooy lan. <laughs> déedéet ajal micro bi. mooy lan <laughs> non ñu ci bàyyi na Fourouz daal dañ koo dañ koo dañ koo jàpp ci gàllaaj ba naawatal ko Fourouz bu ñëwatee ci stade bi dootul nekk Fourouz bu ñëwatee kenn xamul lu muy bëri wu wuñ daal ñu ci bàyyi. mais dañuy xam ne sport tey ji ñun. Mhm. tey mën na dugg salle su ngeen ay 200 kilos 200 kilos. Hmm? mais mais mais balaa balaa hmm? balaa maa ñëw ci loolu ban combat. Hmm. nga bëri nga sentir ne tey Fourouz man Fourouz man Fourouz ñëwul ci làmb ci. sama ko ma amee dem dëgg daanu ma nag. mais comme ma amee dem. waaw bëri naa pere toog du ma six mois du ma mën nelaw guddi du ma tàllee looy wax nii. barke Mouhamed du ma du ma du ma tàllal tànk laa damay damay wéeru nii comme ni ni nii ngay def nii nalaw ba ba fajar. billaahi su ma tàllee ko rek yeewu. c'est waaw la xam ne moom am naa amoon naa lu ma métti trop. ba ma peree dama defaat sama yaram bi lu baree baree baree baree xaalis bu bari. Mm-hmm. wallaahi. xam nga ne lamb di nga jël mbër. Mm-hmm. di ko estimé yaakaar ne ki da ñëw jaati kawam jàll. yaa ko ëpp bëre yaa ko ëpp doole làmb nekkul toolatul foofu quoi. Mhm. làmb yëkkatul niveau boobu noonu làmb da ngay boole ñett. Mhm. da ngay ñaan lu bu baax. Mhm. doo amul komba di génne sarax te man man barke Mouhamed xam nga doon boole gàllaaj. déedéet ku am combat. mais làmb soo amul komba doo sangu doo. suul xalaatuma ko sax xalaatuma ko sax xalaatuma ko man li ma am sama man li ma jàngee bëre. Mm-hmm. xam nga léegi boo génnee nag gars yi booy duñ mbapat parce que tey booy ko ci mbapat ñaari fan ñu yàq la dodo man demati waaw loolu de am na si amee de parce que tey nga yóbbu mm-hmm. nga xam ne da nga man dem yor loxoy neen su màggee du baax ci man mm-hmm. wante dëgg tey mbër dafa laaj boo amee combat di génn sarax boo amul combat di génn sarax mais bi nga jógee sa combat yow ak Ameth Deme mm. euh, loolu dal la ci ñaata mm. temps nga toog loo non yàggul toog naa toog naa lu ma année bi toog bëri naa ana bi topp bëri naa caat bi nga bi nga boo fekk na Farouz ñëwaat wala fekk na non fekk na nga ni ku nekk xam sa bopp mhm. am na ko dee xam ne dafa dafa bëgg yi bëre na yàlla mi doon tege feebar teg na feebar teg na boobu moo sa ñaata combat Ahmed Dem est que du 15. quinzième combat. 14 bi nga nga bëgg. Caat Boy Bambara. Caat Boy Bambara nga def nan. ma daan ko nga daan ko jógee fa jël. jël l'an 2000 mu daan ma mu daan la. nga mhm. jógee ci l'an 2000 doomu daangu. doomu daangu mhm. nga jógee ci ci ci l'an 2000 parce que l'an 2000 tamit bi nga koy jël ñu ci bëri na l'an 2000 moo la mag ci làmb. Mhm. xam nga di coow lu bëri tamit am nga jël. parce que nag Fourouz ñu ci bëri ne Fourouz amul plan de carrière. Ah. day jógee fii dem dali fee tëla tëbaat fee dalewaat fee. lu waral moo tax nag tey jii ma dem bu tey jii ku mel ni xam nga amu seen xam ñoo ngi ko sujj ko ñu nekk sama ginnaaw di ma woon yoon bi parce que yaakaar naa équipe dafa nekk ay xale kese loo leen di gis doole. ñu lépp doole ko man def parce que lan dégg wax dëgg yàlla bu dee yàlla rek moo moo moo bu niru ma leen fii parce tàngal du ma ci tàngal. mais keroog moom màcc na. non keroog man maa daan sama bopp di. moo daan sa bopp. man maa ko tax palakaat mu sukk ñaari ba doomi mu fekk foofu sama tànk yi mi ngi bañ ma bëgg a dem pour jekkali ko mënu ma teewaat sama bopp ma yegg def ko ràppi saako yi. mais lépp lu war a am la am na en tout cas daal pour l'instant nii mhm. barke Mouhamed la ma nekk sama premier combat deuxième combat bi walaay sama yaram foo ma jàpp mën naa def li may def. léegi damay ñëw sa diggante ak doomu daangu ñëwaat jëlaat doomu daangu. doomu daangu tamit ma jël ko dund ci lu tar parce yaakaar naa ko ay xale maa andi. Mhm. parce que nekkoon galaa la woon parce que boo xoolee combat yi ñu def yëpp combat de choc la ku daan fii mën ngaa bëree. kii kii fee xam nga njàmbaar dañ koy doon wala xam nga ok bu dee fii yëpp ba joxe ñëpp kenn dañ ko respecté moo tax ñu faatu képp ku fausse rendez-vous doo faatu te man yaakaar naa bis bu man namee jël avance promoteur lu mën a xew damay si. Hmm. ak lu mën a xew damay bëri si parce que sama cadre na ma pare mais quoi bi ma ñëwee su ma ko estaat télé vidéo ah. gym la moo parce que te mbër ko ko xam-xam na day yëkkati weñ daw dem ci dini man ku ma xam ki ñi dañuy dañuy mbëkkante ñoom dini xam nga ba man li ma xam yanu sëfu dugg saal sëfu mais xam nga làmbu làmbu daal lu war a am day am. te yàlla xam na ne ñoom nga ñëw. Hmm? doomu daangu kor la dóor la nga wàcc. mën daal mën daal hmm. jël bu yomb. jël bu yomb de. billaay jël bu yomb champion ku yàgg humilier waate ku mil humilier ñu ko humilier mais loolu mooy àdduna. boobaak léegi nga toog bëriwuloo. non man maa xam nga tey boo sans écrit da ngay année balance xam nga ñu bëri naa ne foo dafa gëj a bëri. Mhm. mënoo sans écrit dem jékki-jékki dem ci écrit te dama téyoon sama licence mënuma bëri mënuma am benn licence feneen sa waa écurie ñoo teewoon sa licence. non maanaam il faut ma année balance daal pour mën a am licence beneen écurie. xam nga li ma xam naa li nga wax transfert bi. waaw il faut nga mhm. mhm. ma a nekk sama bopp. Mhm. wala sama bi ñëw. fan ma liggéey lu bari ñëw taxaw. waaw loolu tane nga moom. amul tane dama apt <laughs> a sax ni ma bëggee woon kii dama koo xaw a ñeewantal. ci biir wax ji parce que. li ko li ko ci li ko ci. leen daal laa koy wax. waaw leen daal laa koy wax bu fekkee day bëreeg man ndax wér na. <laughs> yow loolu ngay laajte teyel micro bi. ndax wér na. <laughs> non maa ngi seeg moom bu dee yàlla dëgg rek la bëgg. bu dee doole maa la ko ëpp bu dee bëri maa la ko dàq barke Mouhamed bu dee doole maa la ko ëpp bu dee bëri maa la ko dàq. yow mais nag mais nag mais nag naa la wax a affaire de. Hmm. tey de maa ngi seeg dafa mën a bëre. non xaaral déggoo li mu la wax. waaw. billaahi wallaahi taalaa gis nga a barke Seydina Muhammad moom ku dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndam. buñ dee bëre. yéen seen combat billaahi wallaahi wa taala ki dàq bëre. yàlla ko yàlla may ndam. doomu jalaaw li la doon wax nag. ak ëpp fit doomu jalaaw képp fit. barke Mouhamed ki suñuy bëree mën na ko def wuyu ma suñ doon. yaa ëpp doole barke Seydina Mouhamed suñ doon bëree luy am si làmb ja maa koy def. maay dox si kaw maa koy duma maa koy jàppi. barke salaatul fatiha laa lay wax lu eh, leer làmb laa lay wax nag barke salaatul fatiha. salaatul fatiha laa lay waatal ma arbitre boo yàbbee sifflet bi fu mu nekk ma fekk ko fa fu mu nekk bu dee daa am doole moom dina ma bu boobaa lay xam ni la may lem teg na le te man doole daanu ma man xam-xam bu bëri moo may daan ak condition wul fi wul dama laa dàq bëre daa ah. may dégg dama laa a xam ni ñu daanee mbër yow maa bu bu buñ jàppante woon rek billaahi wallaahi nga xam sa bopp <laughs> eh, eh. yow yaa ngi rese bopp de yaa ngi bopp de damaa xam mënoo gëm li ma la wax nag képp kuy takk ngemb ci àdduna ci làmb ci mhm. billaahi wallaahi wa taala daa ko bëre non mën nga ko trop. noo dama ne li ma def mbapat amul benn mbër tool xoolal amul benn mbër bu ko def mbapat. géejawaay. li may wax nii dama koy wax si télé laa toog. mais da nga koy limal booy daan ay ndongolo. non non loolu garaawul. xam nga lan mooy solution kan man. yow man jàmm nga si kaw da nga ma dégg tournoi yëpp da nga ma dégg ku ma fa tiim mbapat daan mbapat. waaw man yow amul ku ma daan mbapat. mbapat ku ci liggéey jël ah tournoi séeréer yow man may may combat na combat a ma mos a daan te man ma Mbappé def yi nekk xale yi nga combat doxuñu ko woon kan kii sama combat man moom doxoon nañ kenn mosu ko dox déglu ma waaw da ngay déglu waxtaan yigtil nañ ko man wo promoteur woo na ma wax Fourouz ba ma wax Fourouz mhm. man ko demal nga seeti Fourouz ba xam nangu na mhm. nee na mu dem xawma ma woo woowaat ma naa ma Fourouz nangu na mais xaw ma kan moo bañ ku muy ku muy ànd ku muy mbo garaam moo bañ benn garaam. waaw mais man làmb. képp koo xamante ni yaa ngi takk ngemb. ci kaw ba suuf nga bañ a bëreeg man danga maa tàppet. mais bu dee palmarès kenn gënuma palmarès. kii de tapetul bu dee mbër non kii garaawul. na kii du fee nee ma la du fee. kii man a moom daf ma leer na barke alxuraanu bu ñu bëree billaahi wallaahi ba pare fu ma nekk dina ma woo téléphone bi ma yow doo nit. mais maa ngi a nekk xale. kan kii a ma ko de. man maa la mag. déedéet non man dama ne dama man maa mag. waaw kon yaa ngi ci laaw te boobu bi nga xool boobu maa ngi ne xale bu ndaw sew ruuj. dëgër këcc. dama lay yow maa yow gi nga sama ko moom. ma yow nga sama moom man bu doon mag kon l'an 2000 du ma daan. waaw si ma dégg affaire da mag. affaire du mag. waaw mag yooyu sa ay deux bu doon mag l'an 2000 du ma daan man ma sama mor musuma daan loolu yàlla dogal say morom musuñ laa daan. dégg man mais nag ay mais nag ñi la mag dong la daan. waaw non yow ñi la mag dong la daan. ay l'an 2000 ay ay ay ay kii. waaw ñi la mag dong la daan. barke Mouhamed kii maa ko man Mouhamed laa watal damaa woor. billahi wallahi taala su ma ko jàppee. bu rek nga bàyyi bëri. bu rëccee su ma ko jàppee nit mu rëcc ma bàyyi bëre billaahi wallaahi taala su ma jàppee nga rëcc ma bàyyi bëre. <laughs> promoteur andi sa loxo andi sa loxo. ko wax. kii ay réel ma kii ay réel ma def. mais muy wax nii moom moom. moom lu nekk laa la wax. yaa nekk laa la wax barke nekk laa la wax su ma la téye gos nga tëdd bu ci njëkk a jàpp da tëdd yow su may bëreeg yow kii su may bëreeg moom du ma ko duma sax dama bëggoon bëreeg moom xeex moom xeex bu rëy mais du ma ko bëreeg yow damay bëreeg yow ma wan ni la yow li nga yor kilo man ay saam la kilo ñaata ak saam ki naan saam ñaata bokkul. Eh, yow bu dee bëre yow loo xalaat démb xalaat naa ko semaine yële passé. jàppal lool rek. barke Seydina Muhammad am plus am plus yow sa bopp tranquille bu dee ci wàllu bëre yow nekkoo. non nee na yow nekkoo. <laughs> waaye la ku tegale ay defet ñu dóor la nga daanu kooku nan lay nekkee yow suñuy bëre ma yow dama koy ñaar eh, defet la ñaar defet laa tegalante. ñaata defet nga tegale. ñaar defet daanu. quatre ah, la nga daanu. ngay daal yow jël as bi rek yow daal jël as parce que dara yaa may dégg nan ma joxul ma lu ma fay si boteer rek man man naa ngeen sama bopp ma jàppale humilier la barke na ñi wax bari na man ku may bëreel boo ma xoolee nii figure bi loolu ñu naan géwél bu eh, kii buy contact ak Eumeu Sène di ko waxuñu ay contact non non moo tax mu ne sax bëgguma bëgguma ma boo yegg man dinaa ci wuyu ma wuyu ma lan la déedéet làmbu affaire bandi la doo affaire ay kii. kii mën na waaw kii suñ dajee si mbedd mën nga maa daan vingt jël mais su arbitre bi sifflé dama lay duma daan la. ak ah, xale loolu amul ma dem te ñëw daan la. kan fu qualifié de daan la. waaw qualifié de moom daan qualifié de maa daan ko daan. maa daan nongolu maa daan kéwél kéwél daan qualifié de. taman bi muy bëree xam nga musul daan ku bëriwul. man 2009 ba ba 2019 bëri naa 16 combats Colifay moom si daan ak double moteur te bii may daan boobu dama son sonn nekk ci ay dimanche eh, eh, eh, ñu tabla waaw boo déggee ma ne ma lay wax mooy sama sport laa lay wax jamono jooju kenn daanu. ma nekk ci ma fi ñun ngay waxal non defal ndànk bàyyil ñun ngay waxal. dama ne. Hmm. bul saltel victoire Diabo. non non double moteur non defal dama dama dama daanu man nangu loolu. waaw te suñu la fekkee de sànni fële ne ne dama sànni ma tegoon nekkoon. moom xam na sport. Mhm. sport da ngay toll moom li muy wax noonu li muy jàmbat noonu du ay liggéey du dara. man maa la gën a xam loolu. man kenn mënu ma liggéey. waaw dañuy waxtaan dama lay dimbali dañuy waxtaan. sport <laughs> sport moo demee noo xamante ni soo nekkee si demande nekk si yoon am na liggéey yoo xam te ne da koy liggéey mais soo paree boo enchaîné combat liggéey yooyu mën na la jàpp jàpp say miskil wala mu jàpp say wala mu jàpp sa yaram ba tere laa yeneen combat yi nga jëm mu yàqu la dara. looloo waral soo sport ba jugee si combat war nga toog ay quelques ay quelques toog weer boo xam da ngay noppalu defar sa yaram. teel micro yi micro bi sa yaram. mais combat boo ko enchaîné rek après yow da lay sonal quoi. wul noonu la demee. léegi mais ñi la daan ñëpp du ay sëriñ dañ la jàpp. ci bëre lañ bëree ak yow da nga bëre. lamb yi ñëw yëpp dama ñëw. waaw non ñëw nekk ñëw ñu daan la man dama ñëw nekk ñëw ñu daan ma man dama lay xamal ne sport comme li nga wax ci sport nii loolu mën na si nekk mais li ma wax da koy nangu. dama la 2009 ba 2019 bëri naa 16 combats perte ñaar su ma la ko waxee ñaar yu mujj yi laa perte. waaw waaw man yu bëree fête quatre combat ba deux mille ba deux mille vingt deux fête quatre combat. non yow sa champion lam laam yu ma ko de. non da sa mbër yow lam laam yu. barki sa non yow dama xeeb. yow fu ñu daje. non si da laa xeeb yow fu ñu daje lan laa lay wax. da yow bu bu parce que bu taxawee fi naan sa bopp tranquille ak tamit li wax sax ne maa su ma ko maa moom da nga ko dox. Mm-hmm. non sama. barke Mouhamed promoteur musuma woo ne ma ne ma Maguette Seck musula kon yow xam nga jikkoy promoteur ah? mën nañu woo sa staff barke alxuraanu kër waa déglu ma waa da ngay déglu ma la bu ñu wooyee Pagan Seras da nga may déglu rek non waxuma déglu ma déglu ma bu ñu wooyee Cheikh Ndoye dana ma ko wax bu ko te kenn loolu amul. sa xarit bi yor am na sa benn xarit bi yoroto. Hmm. di daw ñaay. waaw di daw si ñaay bi tam nekk ma ko ko woo téléphone. waa dégg nga seeraat laa ko déggee. waaw may ko mu ñëw ma yow. sa ndaanaan su ma ko bëggee dindi. man la leen laa. li nga def si làmb kenn mënu ko dindi. man mënu ma ko dindi bokk. champion nga. làmb mënul ñàkk daan ak daanu ñoo si am. mais dama la yow soo doon bëreeg man billaahi wallaahi wa di nga ñandu laal sa tubay ma daan. leer laa la du ñu yëg foofu xanaa ma ñàkk laa jàpp. waaw mu xam ne xanaa ma que bëreeguñu. yow yaa mën déedéet bëreeguñu bëreeguñu que jàppaguma la. mais mais billaahi wallaahi wa taalaahi suñuy bëree man ak moom. dina xam ne moom am na combat billaahi wallaahi wa taala amul kenn ku may bëreel. ku ñu si làmb ji suñu bëree ba pare di nga xam ne am nga combat amul ma dem te ñëw kii suñu bëree ba pare moom dina ma woo wala mu jox ma loxo. déglu ma la man maa la wax classe gi. te fii lañ toog ñun ñëpp ay góor lañ. dama la plaqué de. non waxuma la plaqué. dama la yem doole dara dama la daan la. yow maa ngi bokkuñu. billahi wallahi taala yow ni eh, champion nga de parce que daan nga fi ku ne gis naa nga daan fi ku ba guddi. xamal ni man nga hmm? bu ko mbaa bi taxawee xamal ni Maguette Seck nga am. mais parce que mu ko wax. li am li mais léegi bu promoteur woo woon sa diggante ak Maguette Seck koy kale. bu wooyee man Pape Diagne maan lii la ah, ma damay jël man bëri mooy sama métier Hmm. am naa benn métier nag. mais bu Pape Diagne ajee prix bi nag parce que yaakaar ma ci làmb kese. bu Pape Diagne man déglu man man bu ma fayee. Hmm. loo ma jël booy ay ticket rek man ma déglu ma la wax. na ma rek loolu may reew yi fekk ne mer naa bu yàgg. déedéet non loolu garaawul. man la ma def. wuy ma eh. saree ay eh. jooy la ma def. maa ngi seq ni may defee jooy mooy di ree koo xamante ni yow tàppitu la faalewu la gis nga làmb par exemple tey su ma doon bëri kii sax naa ko respecté. mais maa ngi seet doo may man ma wax kii maa ngi jiitu si làmb mais su ma. non non déedéet man déedéet ñun ñëppay wax ah damay mat naalu. waaw loolu problème su ma la jëlee damay mat naalu xam nga woon la. waaw kon kay. waaw wax maa la man di ngay ko gëm. ah te dafa nekk ci la wax. billahi wallahi taala. rek nga ko doon wax. non dëggum la. waaw bi ngeen defee rënkum daje non yaa non non man ku ma waxal def naa la ku ma waxal def naa la yow combat bi ñëpp xam na ni fa demee ñëpp xam na ne man man benn du ma tase doit jàmm doomu daangu daan na ma jël bu rëy te hmm. làmb dinañu boolewaat amagul combat man amaguma combat amaguma combat ko ah. yàlla na ko jàmm daal moo ki la jël ki la jël nu euh, nekkoon fee euh, ki nekkoon taasi nga mi ngi mi ci yoonam man maa ngi sama yoon hmm. isi amee dégg hmm. mbër daan na fi mbër mbër wër ko dem yoonam am déet mbër daan fi mbër te teewu koo dem teewu dem dëgg la Issa ma dégg Issa kuy daan na Balla Gaye ana Balla Gaye ni ko roi des arènes mhm. est Issa nekk na roi déedéet kon loolu du làmb yaakaar naa doomu passage maa ngi nuyu Balla Gaye de di ko ñaanal aj prix bi baa doo xool booy bi dafa saf nga aj prix bi non yow yow man man tollu ma foofu ci làmb <laughs> man làmb tollootuma foofu ci yow de kii rëy na kii diis na kii kii non non man Bombardier sax mën naa bëri moom te lii ma lay wax nii barke alquraanu karim yi si sama xol bii la nekk. man xam naa mën naa bëree ku la la xamul bëriwul. Ah? man ngaa gis ku nekk ci mbedd bi nga ne ah Fodé mu bëgg a jox. mooy la jël yaa ko waaye boo doy sa jabar dégg ma rek boo doy sa jabar nii ci mbedd ci kër nii yéen ñaar ngi wéet nga ne ko foo laa ba mu ne xool combat mu jox la bëre ba am ci ndam hmm. dana la bàyyi fi booy bi déedéet la wax loolu de xam nga ñeen ñi moom duñ la wax li foo yow déglu ma ñeneen dina nekk. mais yow xam nga ne foo man bëgguma ku may wax. man man sama carrière man nit du ma wax loolu. man bi may ñëw fii. di dajeeg yow nit woowu ma. foo man ak yow bu ñu bëree man ak yow suñu bëree man gis naa ne wuyu ma. am nga ay nit di nga la woo téléphone la gaynde di nga ne woo ne la am naa combat. wallaay laaju gu ma laaju laaju gu te ku ma woo ma jël combat bi. laaju gu ma wallaahi suñ ma woon tey tey tey balaa suba ma woo ko ni ko eh, ma xëdd si barke arxuraanu karim. mais fi mu doon ñaar séance ngay def. non man entraîné wu ma fi mu toll nii. lu tax loolu. non fi mu nii sama business laa nekk. da nga respecté tout làmb wala. dem ak ma respecté làmb. waaw mais lu tax entraîné mais weer bii du weeru entraîné. yow yaa ngi entraîné. laaj ko ban yaakaar naa kii du mu bàyyi fen yaa ma gis dina wala gisoo ma dina aw ma combat de damay def sama deux séances di boole di may gars yi contact. ba pare su ma ba namee comédie comédie bi dama laa mën ne ci état nii <laughs> non nekk ma ci état de. foo <laughs> barke Mouhamed daa may dégg. foo foo damaa damaa jafee bëreel de. dëgg lu ma la xanaa man damaa jafee bëreel. yaa damaa problème bi. Ah, waaw na parce que tamit yaakaar naa ñun ay sportif lan. Mm-hmm. nit dina nekk ci benn waat nit boo xamante day dem a defaate lu bëri. Mm-hmm. mais boo gëmee lii day ñëwaat. day ñëwaat te loolu suñu borom moo may. man doom indi mais bu mu ko indee ci man. barke mu yow lamb yéene naa la si ne lu nekk wuyu ma déglu wallaay comment bi ma ko joxee. Pape Diagne bu nangoo dinaa ko jël defaral ko parce que yow dama laa dàq bëre. du caagan. te ba pare nag daan magget Seck. mbokk sa palmarès du baax la. parce que non man palmarès ku nekk na ci. déedéet déedéet mais sa palmarès ku mel ku sa ku mel ni man saf comme man. yow yow koo bàyyi saf yi. yàgg na yàgg na waaw déglu ma Mamba la man. Mamba la sama doom la. waa man yàgg na saf laa wax. non non Mamba la maa ñoo bokk ikir yi maa ko indi bi muy bëreeg yow. Hmm, kon kay kon kay ñëwal jël ko revanche. non waaw ñu noonu nag moo tax revanche boobu nag laa bëgg a jël. Pamba yaa a saf. Pamba yi tànn lu yomb di jël ay pièces yi. man dama jaar ci suuf. non non amoo papa ay mbër amoo mbër damaa jaar ni suuf jël ndànk naa samay morom yi ñu naan moo saf ma xam ne su ma bëggee tur. Mhm. man première année bi def ma def révélation deuxième année bi def ma ko dama xool booy am tur même danaan moo mun ma dem dëggal sam bopp. doon nga doon nga toj moom doon nga toj waaye li ñuy wax xew-xew yi ay. <laughs> non man moom. <laughs> man sax daanu ma sax booyu ay. non daan nga booyu ay parce que parce que tey jii non kéwal champion la kéwal kan mu gën a nekk champion ci lamb. damaa xam ni mooy mais kéwal daa juum kéwal daa juum. non dama kéwal nu mu juumee. daa juum da doon jëma songale nga lonk ko da la doon jima kii nga kal ko. kal la te damay kal xool damay kal ba boole laa noonu ba ni ngay kale naa lay boole ba nga dëgër xëcc la ba nga dëgër. Mhm. doo la xaatal bi gertoo yow. te noonu laa lay def sax. noonu laa lay def. leen daal laa lay xamal moom sooy bëreeg man na nga na nga na nga na nga li nga daj ci doomu daangu lu ko raw ngay daj ci. non doomu daangu dañu ma ci moom dara. ah yaa may dégg. dajoo si moom dara yow doomu ma ci moom dara moom ma dugal ku tax ma piente ma ma taxaw mu piyatal mu góos ma taxaw mu wàcc di ko bët mu dugal ma ko ma dajee kuu bi noonu la mu demee. kon da ngay bëtaate. mais tey jii dégg ma non non man bëtaatee ma mais tey jii yaakaar li ma def ci Mambal la. rek hmm? hmm. ci Pambaay ñu humilier ma di ma dóor dóor yoo xam ne nii day may bëgg mu jeex te du jeex. Hmm. dajagum ko ci làmb ci ñaari combat yi mujj ma bëri. kon ñooñu noonu loolu nga daj ci ñoom. dañ naa ci ñoom lu mel. waaw dama la sooy bëreeg man lu raw loolu ngay daj ci ñoom. non loolu tàmm naa ko. ndax non déglu ma ndax ñooñu noonu benn bu dee benn sàmm lu ma lax ñooñu gënuñu ma nekk champion dàq ñu ma bëre man ci làmb boog pour te diir dama seet li nga coono yi ngay wax nii dama sedd daj lu ko raw man dama daan dem si nit pour mu dimbali ma sax nga dem nga nga ñëw di ko woowaat sax mu fay téléphone am. 2009 may yar samay ginaar xam ne man am na lu nekk ci man te dama koy yee yar samay ginaar di ko jaay di jënd bologu billet di bë di bëri kon làmb man dama see daj ay coono. kon fi mu tooy nii nii nii amul promoteur bi taxaw ma di la neexal wala ngay taxaw ma lay wax loo xamante ni. xamal sa bopp rek di la raay du ma ko def. li mu def ci làmb woo ñaari mbëy waxtaan ak ñoom ba tax na tey ngeen jàmmaarloo bi neex na te ku ci nekk wax nga li nga xamante ni moo nekk ci yow ku ci nekk wax nga li nga xamante ni loolu nga daj ci làmb te wax nga li nga xamante ni tamit fa nga bëgg a yegg ci làmb soo amoon kàddu yu mujj la lay ne. ah xanaa tànnaa sama gaay rek ñaanal jàmm làmb ñëpp am jàmm képp ku nekk li nga ci làmb yàlla may la ko <coughs> waaw ñu bëgg a nekk roi des arènes comme sama genre yi xam ne ma leen def ambition yàlla may leen nekk roi des arènes ñu bëgg a nekk ay gardien yàlla def leen nekk ay gardien yu mag hmm. waaw ñu bëgg a nekk ay nerf bi yàlla def leen nekk ay nerf yu mag <laughs> yéen ngeen am am seen télé bopp bu mag waaw di ñaanal Maguette Seck di ñaanal Bilater di nga xam ne li bëgg ci laamu ñoo xam yàlla na ko yàlla defal di ñaanal sama doom day Pape Dieng ak waa télé maam jaara sam-sam buun Kër ma Massar hmm. xam nga Bawal ndax xamal lambaay lambaay nag yëpp na ñoo jàpp ci mbir yi parce que tamit kuy waale sa dëkk daa tëggul. dëgg la ñun ay champion lan. Mhm. ñëpp nag xamul la bawol googu ngay woon ak bawol laa dëkk bawol laa dëkk laa la wax loolu laa bëgg nga xam naa lépp voilà bawol laa dëkk laa dëkk ñu ne xamal lambaay sa dëkk daa tëggul mhm. waa ñaanal tamit sama doom nday Moussa Balla Gaye fa laa waroon ubbee kooku sama lépp la yàlla ko yàlla yàlla ko yàlla xare te yéexuñu mhm. ma ne ko yéen waa teeru ko parce sa ñaar fukki fani koor gi mi ngi woon fële Kaolack waa bërki démb rek Mor Thiaroy defal na ko wàcce na ko kaamil. Mhm. xam ñun képp képp ku bëgg bool bool da lay bëgg. su su làmbaay làmbaay parce jàppale na ko bi muy dund bi mu génn àdduna bi taxawaat na ko. Mhm. suñu moo ñu bu baax. di ko ñaanal mu taana fa tëdd na ko yàlla xare ajana parce que nit baax la. maa ak moo amoon na ay réeroo teewul moom dañoo jubale yàggul dara mu tëdd. wallaahi ba yàlla jël ko. maa mosu ñu woon mosu ñu woon ci dara dama doon dem gàlleem dañu sama gàlle. di ko yàlla mi fi jëlee xam naa sama nga ajana moom sama papa ak ñoom fa fekk ñëpp leen ñaanal jàmm lu bari waaw di ñaanal képp kuy bawal bawal rek ak képp kuy yeewoo jàmm nga si ka mbaaw mbedd bu mag sama booy Baye Fall ne xam ne namu naa leen nag xam naa ne namu ngeen maa leen raw waa tëngee ci retaako maa leen di bëgg lu bari sama gars yi ñoom mataar yëpp maa leen di lu bari ñoom ibu xam nga képp ko xam yaa ngi si ka mbaaw yëpp maa leen di bëgg di nuyu tamit waa Seeraat di leen lu bari laaj gol namu naa la waaw di bëgg waa Italie yëpp sama gorete maa ngi di lu bari ñoom góor ak baaram gaa yëpp maa ngi lu bari sama mag yi ñaata ma. yow. Hmm. trois ans quatre la rek la. deux ans deux la hmm. te xool su ma bëggee daw damay dawal oto su ma bëggee moto bu baax dañ may jëlee moto bu mag ma dawal. si hmm. amee dégg nam ma daray àdduna moo tax képp ku ci yor sa sarax booy génne nag man bu ma ko jox. man ko ku bëgg ma bëreel la bëree kii moom parce que kii dafa am dafa am lu ma ko lu ma ko dencal mën naa ko bëree gara jël ay ticket jox ko supporters yi ñëw stade ba gémm sam bopp ñëw bëree daan te du la daan nag ay jël yu yomb yi de. bii damay wanewaat sa bopp damay wanewaat sa bopp wala leneen sama supporters yi li namu ci man ak waa seen amateur yi maa leen bëgg ñoom góor ndoy seen kuréel bi yëpp xam ma ñëw ñu may ma xaalis bu bari moom bër ci làmb nga bokk wax dëgg maa leen sant ñoom ñëpp képp kuy dund làmb rek maa ngi lay bëgg lu bari di ñaanal ñëpp jàmm sama doom day bas Ndiaye maa ngi lay bëgg ba ba léegi affaire yi bàyyi laay tamit maa ngi lay bëgg borom ginaar yi xam naa naan sa waay mu nga jox ci ginaar yi fa côté baa ngi ñëw. waaw waaw parce que Sicap na ndax yow. Mm-hmm. kàddu yu mujj yi. waaw li may wax bëriwul kàddu yu mujj yi bariwul dama ko wax moom am na des na am na lu des quoi moom. nekk li des mooy war la daan rek. barke Mouhamed li des mooy war la daan. soo xamee sport. yaa ngi da nga xam ne moom boppam nekkul en cent pour cent. isa xam lu ma la wax baax. loolu nag lu ñu ci ko loolu moo mën a jéem géwél bu rebe ci xare. ma déglu la déglu maa la gën a pere maa la dàq bëri maa la ko doole. taalaay lépp jël ko. Pape Diagne Seras bu fi ñëwee. lépp jël ko. Pape Diagne Seras bu wax soo ko la bu jël barka arxuraanu karim Pape Diagne Seras moom nga eh, eh. soo ko waxee dina la ba ko fi baaxul ci sa yoon booy may ñu dañuy wax na wuyu ma wuyu ma danga ñu invité dañuy wax non dama koy xamal ne ko carrément sportif sa bopp soo dee ak promoteur yi amul promoteur yi la joxe avance rek jëlal yow bu la fayee bu la joxe may déglu nag yow su may déglu nag sa moralité laa indiwaat yow dangaa dese gëm sa bopp fi mu tooy nii gëmatoo sa bopp. man gëmu sa bopp non gëmatoo sa bopp. en 100% yow dina dem di fayal di jël xaalisam di ko def ci làmb nga naan man gëmu sa bopp. yow da ngaa baax rek. yow ma damaa réer yow wala wala tàggatoo yow. Ah? da nga war a maa ngi nuyu dama la doon dimbali comme ku bëggoo ma dimbali la amul problème. ah baax rek dama la damay nuyu ahlu làmb di bëggee ñëpp di nuyu Forouz sama hmm. adversaire waaw sama adversaire la waaw sama adversaire la copain sama copain la sama adversaire la waaw bu làmb bu ma bëri woon ak Forus ba pare ngay xam ne moom suma xarit la parce que man moom am na xam nga yaa ma gën a xam daal du lépp la ñuy wax mais bis bu ñu bëree man ak moom du lépp la ñuy wax bis bu ñu bëree man ak moom dina xam ne moom man xam naa ko hmm. mais moom daf ma réeree mbir moom bu tax bu toogee ñu teg ko ay micro mu ne moo man dafa réeree mbir barke salaatul faat mais dafa mel ni doyuloo ma daan sama leen noonu moo ma metti quoi. man ni ma daan sama leen noonu ñëpp. di ziar ñëpp di wax ñëpp di wax. Euh, képp koo xamante ni yaa ngi ci koor gi maa ngi lay ñaanal li nga woor yàlla ko suñu borom nangu. di wax ni àdduna noonu la quoi làmb moom bëre la daan ak daanu. ngi ñaan nag bu fekkee force moo gën ci man yàlla ko suñu borom taxawal ma si ma bëree moom daan ko di bëggee ñaar ñi nga xamante ni bi may bëree mbapat ba léegi ñooy nekk ni Saada ak Xaadim Mbay ñaar ñooñu mënu ma leen fay. Mhm. man sum papa gaañ ñoo sama yaay gaañ ñoo. làmb ñooñu ñoo ma basi làmb ba léegi mais kon nag banaa làmbu defi dara bu yàgg Saada su ma àndee moom ba muy naqari. mënuma mhm. booy dina neex nañ jëm. Mhm. ba lépp ñëw tey. kon alhamdulilah rabil alamin xaadim nekk suma xarit ñu yaroon doo màggandoo may jàppale ba léegi làmb man kenn jàppale ma si man maay jàppale sama bopp. kon man maa ngi sant ñaar ñooñu ma yàlla booleel ñu di ma jàppale. di sant bay di ba suñu meeru koñ di sant Fuuta di sant di ñaanal suma ñaari boo yoo xam dañoo am combat yàlla may leen ndam Youssou Ndour yàlla na ko yàlla may ndam combat mu jëm. Orka yàlla na ko yàlla may ndam di wax gars yi nañ sóoraale sama benn doom mi ngi ñëw. <clears throat> Ah, nu na ko ñëpp bàyyi xel mi ngi ñëw. dama palaane tur bi. non turu turu police la tur ban tur kii. Gedda maa ngi koy ñaanal booy bi yàlla na eggaleeg sagoom xale la boo xamante ne papa mu ko dénk mais mi ngi si yoon mais ngi entraîné yàlla na ko yàlla may mu nekk champion di ñaanal. papa booy jinne di ko wax ni ko làmb noonu la day naqari mais day mujjee neex càppal dina baax yow dara jomb la parce que nit ku baax nga duggoo ci kenn waxoo ci kenn lu ñaaw di ñaanal macca di ñaanal ñaabu ndaw di ñaanal bépp mbër ah, Modou di ñaanal taaliba seex bépp mbër boo xamante ne maa ngi dëkk ak yow di leen wax ne sama xol jàppalu si kenn dara yàlla ñëpp nekk champion képp kuy yëngu si làmb yàlla na suñu borom jàppale parce que làmb dafa metti waaw du bëggee ñëpp du nuyu sama ah, mbër bi. kii di ko ñaanal carrière am yàlla na ko eggale jàmm. di ñaanal sama adversaire di ko xamal ni ko li ñu wax fii du dara dañu war a bëre. Mhm. te dafa war a neex fi kenn du raay kenn. Mhm. mais moom xam na ni jox naa ko cër. moom jox na ma cër mais su suñu waree bëre amul yooyu dañ koy jël teg ne la bëre ba pare man loolu laa gëm. di nuyu Eumeu Sène du ko ñaanal ndam yi mu jugee yàlla na ko jig di ñaanal Balla Gaye 2 li des ci carrière am yàlla na nekk ay victoire. waaw ah, di ñaan Eumeu Sène nag comment bi mu jëm salaam hmm. waaw. moom Balla Gaye de may ndam. non Eumeu Sène moom Eumeu Sène moom bu bëriwaatee ak Balla Gaye de incha allah ko fi yeggalee. waaw Ouzin te dafa am noo xam ne tamit war nañ ci wax. Hmm. tamit liis Liss Ndiago suñu champion bi. ba yëpp ay champion ñoom see Baye Fall gaa yëpp ay ñoom Laurent ñoom Mbaye Xaraa ñëpp ay champion mais Liss dafa nekk xale. Mm-hmm. amul lu dul làmb yaakaar lu dul làmb. Mm-hmm. parce que yaakaar naa CNG aj ko ci loo xamante ni moom mën na defu ko. Mm-hmm. parce que ñaari ñaari kii la ko def ntool mën na defi leneen su mën na andi leneen parce que yaakaar bu dee am yenn tuuri rek am na ñoo ne war na ko jombale boobu te Liss ku xam ne am na ci ginnaawam te yaakaar lu dul waaye CNG di leen ñaan yéen suñu suñu suñuy kilifa ngeen da leen di ñaan ngir yàlla ngeen tegli ko daan mu mën a yeggale dabi ay moroomam bëreeg ñoom parce que tamit làmb ko soxla làmb jàmm gan ñoo ko soxla parce que xale la bu jógee ñëpp jóg làmb événement la da leen di ñaan per président CNG bi. Bira Sène père Bira Sène ñu ngi lay ñaan yàlla yàlla mi lay kàttanal ba may la dooma tàng nga jàppale ñu ci Liss Ndiago mi parce que ñun amuñu kur amuñu lu jàmm gan tey jii suñu ajee liis daanaka làmb jàmm gën lan aj parce dafa bokk ci làmb jàmm dafa bokk seen espoir yi nekk jàmm mhm. te ñun dañoo bëgg a téye làmb comme ni ko waa Géejawaay téye waa Patel téye noonu waa mu jàppale booy bi daal ñu koy ñaan yàlla daal waa CNG ngeen jàppaleel ñu booy ngeen baalal ñu ko quoi suñuy peer ngeen suñuy xarit ngeen ñu bokk teen ñooy lax sooy goj mhm. juum na juum na dootu ko defati mhm. waaw seen doom la jéggal leen ko rek te yàlla tax dafa mën loo ji sànni waaw waaw ci liis laay wax waaw liis ñu ngi koy comme li sa waay wax rek loolu rafet na ñu ngi ñaan CNG ñu wàññi daan yi. teggil ko ko ba mu mën a ñëwaat nekkaat ci course bi comme ay morom comme que làmb moom boo ci jugee at rek dinañ la fàtte wala keneen ñëwaat sa kanam. Hmm. te liis moom làmb daf ko bàyyi xel parce que làmb mu ngi ciy bay waaram. Hmm. waaw di wax waa CNG nañ ko jéggal te xam ni dafa juum te nag seen ñuy wax ak seen supporters yi. am na ñoo xamante ni ñii gàmmu ak ñii raas déem bokkul. am na ñoo xamante ni yàkkamtu lu mbër am bis nga jaar fa ba jël yëfu jàmbur wala nga jaar fa ba def luñ la def loowul te liis yabalul kenn muy def loolu. liis lu mu yabal nit ñi mooy nga sol tisatam sañ sa foor mu dem mu daan. nga ñibbisi mu daan wala mu daanu mu ñibbisi loolu la bëgg moom maa ngi koy ñaan nag waa CNG yàlla nañ ko jéggal wàcceel ko affaire parce que làmb làmb daal ñu ngi koy soxla na ko soxla na ko mhm. loolu gis ngeen mbokk yi noonu lay demee ci jàmmaarloo di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër di di di jaajëfal ñëpp ñoo xamante nii dañuy jàpp ci jàmmaarloo bi euh, Khalil. waa euh, Ibrahima maa ngi bëggee Muntaka Muntaka suma rakk Belal. Siré bay di Daado Jaw kër googu falaa sama taaw yaayam laa ko tuddee kër googu ma nekkee xale falaa daan def.